ku yéeme la parce que dafa dëgër bopp Maodo dafa dëgër bopp dafa dëgër bopp ba nga ni lu doon moo tax entourage nekkoon ñu ñu ñu doy waar dañu daan jaaxle dañu daan jaaxle euh, mais moom li mu xam rek la xam waaw Serigne Alioune Gueye nee na dama xëy ca fajar ànd ak moom di ko seetlu ñu dem jàkka ja ba ñu jullee ba noppi wadifa ba ñu wadifa ba noppi mu waare bi mu waaree ba noppi mu wàññeeku ñu indi téere yi mu commencé jàngale ne di jàngale ba saxaar wara a ñëw mu ni nañu seet ndax ay gan ñëw na ñu seet gan yi ñëw ñu laaj leen seeni soxla ñi ci bëgg ijaaza ñu defaral leen ijaaza bu ñu noppee ñu dellu ca jàkka ja bu ñu jógee ca jàkka ja mu commencé jàngale ci téere yi dootul waaraate ci téere yi lay jàngale nee di jàngale ci téere yi nee na ca lay nekk ba tabarkal la ñu julli tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi commencé ñi desoon ñu mottali leen nee na di waajal timis ji bu ñu jullee timis ja ba noppi wadifa bu ñu wadifa ba noppi jëm ci gée bu ñu julee gée ba noppi mu waaraatewaat nee na bu min wi dee jot nee na mu jóg ñu jóg topp ko ne yenul ko téere yi ñëw ba ci biir néeg bi mu dal ni teg leen yi ci kaw bi ñu teg téere yi ci kaw lal bi mu tëdd ci suuf waaw mu tëdd ci suuf ne ma ni ko góor gi lii metti mu ni ma doom ku ñu fekkul wan nga raw nga xam waaw xam nga mbooloo su mun la waaw boo ko jëkkee rek rey sa bopp parce que su mun la boo ko jëkkee rey sa bopp moom nag loolu la xam mu jëkkee ci boppam mu jëkkee ci boppam ndax daf daan tànn nag daf daan tànn ku dëgër bopp la woon tabarkàlla moo tax rekk lu mat a bàyyi xel lu mat a xel ndax itam nit dafa rëy ci yàlla bu la ñett toppee rek alku nga alku nga ñett ñetti nit rekk bu ñu la toppee alku nga alku laa wax yow nag nga ni junni nga ci bëgg junni loo doy junni nit dama lay laaj loo koy doy ah? da nga leen di yóbbu àjjana mais problème mu àjjana posé wul posé wul nit ñee ko posé seen bopp